sëriñ Cheikh Maye Niass eh, ñaanal ko yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ginnaaw bi ñu rafetloo li nga xam ne lii moom mooy ay tànkam yi muy dox ci senegal di ko dox ci ci Afrique eh, gis nañ ko ci réew yu bari muy Tchad muy sudan muy Niger muy euh, Nigéria euh, yooyu yëpp di fa dox tànki jàmm donc tànki tànki diplomate la la la taxawee euh, vraiment ñu kontaan ci moom dalal nañ ko suñu loxo aussi pour mu ñaan ñaanal Sénégal. Euh, ñaanal Sénégal jàmm am fi ndax ñi ngi dëgmal ay élection euh, loolu aussi baax na jàmm am ci réew mi waxtaan nañ également ci wàllu mbay ndax ka xam ngeen sëriñ bi moom dafa bëgg mbay euh, man it yàlla def it ma bëgg mbay kon ñu waxtaan ci li nga xam ne lii def nañ ko ci nawet bi ak surtout nag li nga xam ne lii ñun am nañ ko yéene bu ñu yàlla tegee bopp ci bopp réew mi fii ak juróomi at waaw suñu déclaration de candidature moom def nañ ko ba pare te am nañ yaakaar ne loolu sax moom kii la rek jàpp nañ ne wax jooju moom vraiment mën naa am peut ñi déclaré wut la ñuy la concerné mais ñun li am solo mooy li ci kanam ci su ci suñu gan ci suñu kanam donc am nañ yaakaar ne bala mu yàgg danañ ko dinañ ko fësal Sénégal yëpp xam ko. ndax ci waaw coalition la ñuy demee waaw incha allah Abdoulaye Dione waaw ñi ngi ñi ngi waxtaan bon aussi ñi ngi waxtaan ndax moom dafa yàlla def na suñu mag la nekk naa ci gouvernement pendant cinq ans boo xam ne moo ko jiite am na également de rapport rapports aussi xam naa yéeneen ci réew mi donc nu ci mën ta doon en tout cas mën nañ bañ a réeroo ci li nga xam ne li ci liñ jëm ñooñu nag ñi ko wax dëgg-dëgg duñ ay baykat xam nga ñun ñi nga xam ne baykat lañ moom baykat heure bii nii xam nga lan la ko lan la lan la dese ci tool yi wott ak sàmm wott ak sàmm buñ toogee bu fii heure bii loolu rek la baykat war ci tool yi ndax ñun li ñu def ko en tant que euh, ministre def nañ ko mooy fexe ba intrant yëpp doy yaakaar naa ne ren moom kuy bay ku ne xam nga ne loolu am na dem na ci ñi mu war dem loolu aussi am solo nawet bi yàlla sutural nañ ci am nañ yaakaar ne Sénégal dana am lu mus sa am ci spéculation bu ne muy ceeb muy mboq muy lu ne am nañ ci yaakaar yàlla bu ñu bu ci cat jiitu te yàlla nañ ko muurloo bu ñëwee loolu mooy li am solo ñenn ñiy wax nag gëm naa ne duñu ay béykat ñun béykat yi xam nañ euh, vraiment ban heure la ñu mën a wax ne bàyyi nañoo bàyyiwuñu waaye heure bi moom yaakaar naa ne ñun béykat yëpp ni nga man de sama tool léegi ne sàmm rek laa ci des sàmm rek laa fi def fexe ba bu ko jur yàq fexe ba it ba yeneen njanaaw du ñëw yàq ko rek moom ci dese fi mu toll nii